RFM en direct. RFM Matin. RFM Matin. émission Billet Sénégal. RFM Matin 7h40 Nous dalal Sunugan. Tchat Salam, alaikum. Alaikum Salam, Babacar. Nous sommes lay nuyu kon di. nuyu Georges Déthié Diop euh, rappeur nga waaye rappeur nga ci groupe bi ñu naan kër gi te dëkk ca Kaolack. Mhm. waaye bokk itam ci mbootaay gi ñu woowee euh, Y'en a mhm. dañuy njëkkee coowal euh, François Mancabou waa ji ñu ne dafa bokk ci. li enquête katu police yi di woowee force spéciale te ni dañoo bëggoon yëngal réew mi keroog le 17 juin bi yeewi askan wi wootee am ndaje ci réew mépp ngir ñaxtu euh, ñu téye ko ca police centrale bu ndakaaru mu jóge fa dem l'hôpital ndax yi gaañu gaañu euh, mu faatu njabootam ne dañ ko toroxal duma ko gaañ ko ba mu ñàkk bakkanam enquêtekat yeeg procureur ne mo don gaañ boppam di mbëkk miil yaak euh, grillage yi ko tëjoon. Mhm. nan nga ko gisee. wa ni mako ko moy lu doy war la. lu doy war la lutax parce que euh, art won nañ dañu seetlu depuis un certain moment le régime Macky Sall bi dafa imposer ben terreur ci réew mi terreur bi moy traquer jàpp matraquer humilier sanni ci ba def ci yi a ci jamono yu néew yi ci marche yi fi amoon dañ lay jàpp dóor la ay policiers ñu sànni la jam wala ñu la ci euh, VDN 3 bi et artu ci wax ci mais dafa ne kenn ci mais aujourd'hui buñ demee sûreté urbaine

le régime de Macky Sall mi ngi imposé ben terreur légui dañ lay japp do la ray la ñaari jangal nak man personnellement la ci am ben bi moy torturer nañ ko dor ko pour xeyna avouer avoué loo ko loo amut wala charger loko ko xamné xam bëggut ko wa ilaa ñi ngi fexé ñu ngi ko noppilooyee ci li nga xamante ne moom moo am en tout cas gëwma procureur bi lim tok servir ñuko d'autant plus que procureur bi Rebelles, yi nga xamantene kenn en ba ñi ngi reer ne muy ci biir dakaru mo di ñu naan 13 minutes lañ am ci vidéo di mbëkk bopam ana yenen détenu yi ana chef de poste ana yenen policier, yi newon ci biir police bi mais vraiment ça dafa woné ben ben ben manque manque de sérieux bu am ci bi nga xamantene mom la police di def mais dafa aussi manque de respect bi nga mom sénégalais yi di ñu servir sur le plateau yi ni mel même bu fekkee moo mbëkk boppam euh, foofu police euh, juum na fa ndax euh, yëf yi garde à vue la tudd garde à vue vue mooy bu ñu la téyee dañ lay teg bët ne la jàkk di la xool. kenn def ko gëm wala ñu def la caméra di xool ci yan anam nga nekkee ak lu mënti am am na loo xam ni faaw nu wéeku ko police. ñoom la amul faw ñoom la dañ ko torturer parce que jabaram wax na ay kàddu nee na gis nga dañ na ma jëkkëram nee na ko gis nga lii ñu ma def. munuñ ko nëpp nëppal. léegi jabaram dégg nañ ko dégg procureur tudd nañ vidéo xanaa ñu xaar vidéo yi euh, ngir gën a gindeeku. même su vidéo amee que gëmuma ko ne am na même su fekkee ne vidéo am na waa ji mën na fa nekk 13 minutes di mbëkk boppam ci miir police police yi ana ñoom fu ñu nekkoon ak li ñu doon def ñu xool ko ci caméra bi bàyyi waa ji mu xaru wala baye waa mu gaañu lan lañ ko pikiir ban dom lañ ko jox mu nan ko bo war a na tollu ci état bobu non lan lañ ko bëgg a defloo. qu'est-ce qu'il a refusé. vraiment cette histoire il faut que ñu élucider ko léral ko ben sénégalais gëmuk li procureur bi wax. mais euh, vidéo bobu xeyna dañ euh, dañ ko gis ndax procureur mom néna na mën nañ ko mettre à la disposition des organisations de défense des droits de l'homme euh, ak itam ñi nga xamanteni ne ñoo di enquêteurs yi te bu nekké ci dossier bi dossier bi itam avocat yi danañ am accès. ci éléments yi nga xamante ne ñoo nekk ci dossier bi. xam nga loolu caaxaan la parce que avocat yi amuñu woon accès ci waa ji bi nekkee ci foofu noonu amuñu woon accès ci moom bi mu feebaree nañ ko waroon amee une amnistie yónnee na fa docteur mayuñ ko mu càmbar ko na mu ko war a càmbaree to ja ba jaan dem nga topp ci watat bi loolu lañu wax ne dañ cee sonn vidéo boobu même bu amee dama ne ñun lañ cee gis ak la ca am dëggantaan loolu lañ bëgg ñu l'enquête ko ba génneel ñu ko tegal ñu ko ci koo table ji dañoo sonn ci procureur buy génn di wax yoo xam ne tegul ci dara l'enquête Bobo, am na ñi nga xamanteni ne dañoo jàpp ne waruñ koo bàyyi division des investigations criminelles ndax division des investigations criminelles ci police la bokk. est-ce que gënut wala loolu nga jàpp ñu jox ko gendarmerie wala kan. xaw ban koor lañ koy jox lu ci munti am daal ba am ko mooy ne. il faudrait trouver un coupable parce que depuis un certain temps sous le régime de Macky Sall c'est le 24e mort et jamais il y a eu de coupable Macky Sall ci nguuram rey nañ ñaar fukk ak ñeenti doomu aadama mu nax saay te sa suné ay lay ay tappale ngay gis gis nga ki ki lakkoon ki ki ki ci manifestation bi dañ né mom mo tal bopam que que que dee woon ca ca Bignona ñu né paaka lañ ko jam te ñëpp gis né bal lañ ko door kon yu ni mel. moo fi fi commencé way ñiko ñiko ñiko gis nañ ko image yaa ci internet bi. buñ d'ailleurs buñ né paaka moko ray c'est encore plus grave cela prouve la présence de nervi dans les marches lors des marches c'est encore beaucoup plus. waaye ñooñu mën nañoo mën nañoo féete fu ne de. non nervi moom fu ku ne xam na fi mu féete moom. ah ku ne xam na fi nervi féete dañ bàyyi caaxaan. li ma bëgg wax ba wax ko mooy ne il faut il mm-hmm. euh, nga xam ne nervi yi nekk fii ci dëkk bi ñu leen di gis ñu yor seen ay jaas yi. ànd ak police Macky àndal seen caay-caay moom. Mm-hmm. jaratul laam-laame waaye itam bu ñuy jàngat nañu objectif. waaw mais xam nga man moom image ci image la ñuy wéeru nervi yi sol marron beige andak ak police xam nga nervi nervi ku bok nervi manifestant gis nañ leen le euh, mars 2021 yoyé nervi andak ak police don liggéey di dugg siège APR loolu moom lu wér la loolu lu wér la waaw loolu ci mars 2021 la waaye ci leneen amagul ay firnde ni euh, rax nañ ci itam boo amee beneen boo amee nervi bu bokk feneen nga wan ma ko aywa Georges est-ce que gënut ñu xaar ba contre expertise bi nga xamante ne nee nañ alterné lañ koy def euh, defee ko fii Ndakaaru en présence d'un médecin désigné par la famille. gëw dina gëw dina jur dara parce que dama gëmut régime bi limi wax. c'est que problème bi yëpp foofu la nek dama gëmul ne dina jur dara mais il faudrait que justice soit rendue depuis que Macky est arrivé au pouvoir le Sénégal dafa dëgg. lépp loo xamante ne charte la bu famille bi moo laaj contre expertise. oui ñu nangul koko oui mu désigner ab médecin wa nga xamantene mom ci walu bopam mom moy assister ci contre expertise oui on verra war na mën jur dara. on verra parce que la famille du jeune de Bignona dafa demander contre expertise ba léegi amagul fen mom lay wax voilà voilà boobu ngay wax. voilà ah. donc ba léegi mu jugul fen donc yu ni mel dal régime terreur la mu ñuy fatali les régimes de Kabila les régimes de Bokassa mag yi mi ñuy fatali ay Idi amine ci classe bobu la bok c'est de la dictature japp

ñu ne leen waay mu tegati ay loi yoo xamante ne pour restreindre les libertés des Sénégalais. mais ñi ñu jàpp fekk nañ ci ñoom ay jumtukaay ki ngànnaay ay bali fetal ak i fetal yoo xam ni euh, lu ko waral loolu tamit noo koy def ci booy analyser ak di commenter. sincèrement man gisuma ko. bu dee ah. gisuma ko gisuma ñu ne dañu jàpp ay nit ak ay fetal. gisuma ko dégguma ko it. man li ma xam ba xam ko mooy ne. loolu procureur wax dëgg. mais xam nga encore c'est encore le procureur ki parle. procureur moom lu ko neex lay wax rek. bu ñu gëm gëmloo nañu fi ana rebellam yi rebelle Dakar il faut que ñu bàyyi et puis yu yu mel yu ni de yu non procureur depuis depuis combien de temps le le a sur des questions aussi importantes boobu légui déggu via presse rek la qui liiree. kii fi. mom qui la wax boobu légui la la wax. depuis ces événements là. yi fi qui yi fi xew ni jamono yu wax ay waxu ak ay waxu ak ay cocktail ak ay nangam ak nangam koy dégg mais ci presse lañ ci l'observateur lañ koy lire tu vois amul ben autorité bu génn taxaw wax ci addu ci lu lu mooy ne dembu il a fallu mu am ko xam tane te na ñak na bakanam ak keneen ko xam ne nee na un porté disparu ken gëmut ne koku rëcc na ñëpp gàpp nañ sénégalais bo fi laaj danaan la xeyna koku tamit fagaagal nañ ko donc loolu mo fi am loolu moom mo fi nek nañ ñu nañ ñu respecté wax sénégalais yi lan mo am nit ñi mën ko comprendre nit ñi mën ci taxaw ku nek jël say matuwaay

Euh, bu opposition defee njuum njuumte du ngeen ko wax. loolu moom boo loolu moom yow yaa koy wax rek yow yaa koy wax mais xam nga ne amut. noo gisee kii nag taxaw ne Macky Sall daa bañ Casamance ak Joola ku sant sant joolaa loolu noo koy jàngatee yow. waaw xam nga man moom li may am habitude di wax j'ai dit aux gars aux gens gis nga discours bu nekk bu dee dafa am lu muy tontu soo tegee tontu ba bàyyi la la ko jiitu mun na am incohérence soo tegee la la ko jiitu bàyyi tontu boobu. yaa ne par incohérence non du question ne par parlo du Babacar par parlo dafa am loo xamante ne ni boo ko nekkee di ko wax danga koy jàngat depuis le début li ma mun a wax boo wax ko mooy ne sur ces questions de discours man du loolu lay attardé wu xam nga ci lan lay attardé wu ki ñu dénk réew mi sant ko ay mbir nekku ca man loolu moom moom yitteel. léegi ku yëkkati kàddu gu mën a indi fitna ak jaxasoo xanaa askan bi ñoom nit ñee moom askan kenn mënu leen def loolu lu ñu bëggul def. askan bi duñu ay xaram. yëkkatil est-ce que ay waasoo ki xeet. loolu ci régime Macky Sall lañ ko gis. depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir si lañ gis ay affaire de xa ay affaire de ay affaire de euh, pendaka anamu. pendaka moo fi taxaw ne képp penda ba xaw ma képp ku dul pël nañ ko na nga nangamtaan fu mu mujj. ak dimburu utaluñ ko visa mu dem dunguru lu mu wax ku àndul ak Macky na nga jël jaasi def ko nangam ak nangam. ñu def troisième mandat. ñii def ku def ñu def suñu troisième mandat. tout ça y a des précédents te am mujjul fenn donc il faut qu'on il faut il faut que ñu wax ne ku gis ndar da nga naan ndara ñi nii par parlo, amuti ci. amu am na ñu bëri ñu jàpp ni Macky Sall euh, paloom gi euh, def caa jiital ay euh, yenn xet bàyyi yenen xet non lolu c'est un débat inutile qu'il faut pas poser au Sénégal. ah ben voilà oui nañ ko bàyyi di ko poser il faut que tous les leaders. de alors politiques non leader politique ak société ak société civile ak kilifa lépp lu mu ci mënti doon il faut que ñu delloowaat nek ay responsable parce que ces genres de discours mën na tal Sénégal te buñ ko d'accord.

ils veulent nous faire croire plein de choses yo xamantene ñun askanu Sénégal du ko nangu. man gëm na Sénégal kenn mënu leen jaxase. bu ñu dugal ci lolu mënut nek mënut nek lolu hmm, sank ne nga ci législative yi amu leen pété ndax euh, ci op mouvement bi nga xamante ne faru leen fenn la. Mm-hmm. et pourtant en deux mille euh, deux mille douze. yéen a mm-hmm. yéen a gunge woon non mësuñu gunge Macky il faut il faut ñun. deuxième tour bi non deuxième tour nga wax deuxième tour kay ñun kuy xex kenn lolu pété la. wa du fété du fété xam nga fété moy lan moy ma jël sama xaalis jël sama auto jël sama voix toog ne la demal nga votel jiw non yow yap nga ñu ah mais yeen yeen xam nga problème bi moy ñun sax au moins ñun au moins ñun on a été très clair on combattait Abdoulaye wad ne 13 candidats mo am tan len ku len neex ngeen votel ko légui loolu du xaaral ma même ñu rek ah. sénégalais yi 13 candidats ñu tan Macky Sall indi ko deuxième tour ñun suñu logique lañ top ñu continuer di xex Abdoulaye wad mais ñun on on l'assume on assume clairement vous voyez ce que je veux dire Maintenant, dit vous combattez le pouvoir. Mais on a toujours combattu le pouvoir et c'est Pourquoi ne pas dire donc voter tout sauf Non, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Nous rôle c'est notre rôle. Nous savons notre rôle. Élection jodna, wax nañ ci lañ ca wara wax depuis le début. Ngagn nañ parrainage bi, parrainage bi du yon Ni ko Macky Sall tégué, Sénégalais en anduñ ci parti politique yi anduñ ci campagne ci xuloo ci bañ japp ci suñ coordinateur yi japp leen ñu ñëwati ñu artu le conseil constitutionnel ne ko na nga jël décision bu responsable ñu artu ko wax ko mu jël décision ba mu jëlati bi nga xamante ni euh, ministère ministre de l'intérieur, bi nga xamante partisan la dafa far valider ko parce que Macky n'a pas la hauteur d'Abdoulaye Wade à l'époque bi nga xamante biñ ko ŋàññee ci ministre de l'intérieur, daf ko daf ko dindi tek kenen pour organiser des élections nit ñi mun ci dem de manière apaisée kon ñun. lañ ca war a def bi fi nekk itam moom euh, xame wuñ ko parti de wala. waaye mais attends euh, da nga bëgg wax ne yow ah, jom bokkul farul farul farul ci farul ci pouvoir bi. ah ba fii de loolu ba fii de gisuñu firnde wala. am nga ci takk firnde yi kay du ma fi nekk di ko limaat leer na du jeex mais li ma la bëgg wax ba wax la ko ñun suñu rôle ci élection moo nekkoon sensibiliser wax nit ñi dem jëli seen ay carte instant bii nii ñi ngi continuer di def ay capsule di wax nit ñi dem leen jëli seen carte ba keroog la 30 hmm? mun ngeen ko dem jëli seen carte daal man li ma bëggoon wax ba wax ko daal mooy ne hmm. ñun suñu position dafa claire ci espace bi yëpp notre position a été toujours claire donc bu munoo fee indi benn lënt lënt ci bopp sénégalais. Ah. ne yéen da ngeen a far. non on est on est on est on est on est pas l'observateur. leerul leerul leerul ma ne on est pas on est pas l'observateur. gis naa sa allusion yi nga def boo ak mais. non y' a des allusions. non non y' a des allusions loolu ñaan nañ ñu buñ ci buñ ci buñ ci tontontu waxi kasaw kasaw yooyu dootuñ ci tontu. mais dañu bëgg a xam conseil constitutionnel bi nga tudd sànq wóolu nga koom ci mbirum troisième mandat bi ñuy makkee ngi raam di pes ngir euh, wuti ko non wóoluwuma ko c'est sûr que dafay jàll comme du beurre conseil constitutionnel bi lu fa ñëw jàll comme du beurre góomu ko. wóoluwuma ko xanaa mi moom dara baxul wa ci côté justice. Hmm. li ci nek ci ay manquement dafa bëri. ci justice gëwma ci lu bëree bëree bëri bëri bëri. parce que tout tout le temps Macky Sall ci boppam ŋàññi woon na conseil constitutionnel bi ŋàññi yu méttee métti. aujourd'hui même conseil constitutionnel mo fi nek xëy ñaar ñoo ca yokku mais gis ngeen li ñu nek di def ils ont ils n'ont pas eu le courage d'invalider la liste de Benno Yakar et la liste de Yewi. Nous coupons la poire en deux valider bi liste invalider bi liste ay kon conseil constitutionnel du une décision dans le sens du droit man nous ko pas, je lu fa comme du beurre Sénégal bu nous euh, et pourtant souvent conseil constitutionnel la justice day et ay dogal ñu rafetlu coup la la justice fonctionne dans dans ce pays euh, c'est le cas qui même par euh, parrainage le ministre de l'intérieur rejeté une liste a ci un département le conseil constitutionnel dafa jël dogal ne ko pas n'est def du non. xam le problème c'est bu y une décision. de justice. rafetlu ko une décision de justice dafa du ñi ça veut dire qu'il y a une anormalité. la justice doit être rendue à tout bout de champ et tout le temps de toute heure problème bi mooy bu fekkente ne. mais mais juste juste bi ngeen di xas ci coowal passeport ak euh, trafic visa yi nga xam ni. Mm. yéen waa Y'en a dañ leen ci tudd gis ay vidéo mm. lu ni fang xam amatul warante mm. ñu ñu ñu ñi ci jàppoon ci yéen ñaar ñi ci jàppoon ci yéen. Mm-hmm. justice euh, denc leen tuuti bàyyi leen ñu féex. Mm-hmm. kon kay justice dawal na foofu mbaax ak yërmande am déet wala itam mm-hmm. loolu moom. non non non depuis le début loolu ñun moom on demande qu'à ce que si dossier boobu ñu jugé ko su fekkee dàng fàng la comme ni mu leeree noonu ma loolu flagrant délit lañ doon laaj ñun boobu ba léegi ñu ngi koy xaar dossier boobu ñu ngi koy renvoyé renvoyé nag bii mooy quatrième fois ñu renvoyé ko donc mu jeex mu leer ci bopp sénégalais yi du ma ci détaillé nag parce que mi ngi pendant mais li ma wax boo wax moy nañ ko juger mu leer fofu la mën a. ñoom wax fi dafa pendant te yeneen yi yaa ngi ci commenter lu ci melni ki fatou qui demb di François Mankabo. il faut que tam. taxaway bi taxawaay taxawaay bu jup xocc mais Babacar faut pas ngay mélanger aussi ay dossiers xam nga chaque jour yaa dem palais de justice gis ñuy juger ay affaires civiles. Il n'y a pas de problème les affaires civiles ça se juge. une affaire c'est une affaire. oui non mais une affaire une affaire euh, n'est pas une affaire. une affaire n'est pas une affaire depuis que Macky est arrivé au pouvoir toutes les affaires sont devenues politiques. Tous les opposants ont des, ont des problèmes. Tous les opposants ont des situations avec la justice. Tous les, tous les, tout, tout, tout le monde, presque tous les activistes. Le trafic passeport au Ndiapo à Yanamar, euh, non, politique Attends, attends, il faut, il faut, il faut, il faut dire, quand Ndiap? Ndiapo Baylen. Simon, Simon ak Wa légui, lan lan lan lañu wax, lan lañu wax. Lol tamit politique là. Wa dama lan lañu wax. Dama lay laaj ba xam lol politique la am dé. Lol mom la la, mané duma ko commentaire man personnellement. Duma ko commentaire parce que mi pendant c'est un dossier qui me concerne man directement mi pendant depuis bobo léegi ñu ngi koy renvoyer renvoyer nañ ko quatrième fois nañ ko jugé mu leer loolu laay wax kay li ma mus wax depuis le début ba tey. jërëjëf nañ ko jugé mu leer. loolu la ñaan ñun. ñu ngi lay gërëm Thiat sant nañ leen. kër gi ak Y'en a marre. waaw yendu ak euh, jàmm. jaajëf bëggee. jërëjëf Georges ngeen jëf nata jërë ngeen jëf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 waaye dugg ci bërëb yépp taf seen bakken loolu moom dangaa gisul like like muy bomb ci jamonoy tàngoor bii fraîcheur la leen indil Pour se rapprocher davantage de sa clientèle et leur faciliter leur achat, Soumari.com, en partenariat avec la CBAO, met en place le système de paiement par tranche. Vous êtes salarié Domicilié à la CBAO Cette opportunité est pour vous. Bénéficiez de tous les produits de Soumari.com et payez en toute tranquillité où que vous soyez au Sénégal. Rendez-vous rapidement chez votre gestionnaire de compte ou contactez-nous au 76 450 76 46 ou le 76 840 78 01 ou alors rendez-vous à Soumari, avenue Lamine Gay, à Soumari, Gaël vous avez besoin de caution sur les marchés publics ou privés Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, Assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La Sonac SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le code SIMA. RFM Matin, Yay boy, mala la yekkal ah ouais, c'est mon kontaan na ci teranga gi. indil l'écran. <laughs> ah gone gi xam no noo <laughs> تقهرت بي سنبريك دولي ليكران ما ونك بير بونير بي بينو دول الكالسيوم اك بروتين مولن دي غونغي سي بولن دي ياكل نينن بوغ نير تام هاري رجام اشورا مبارك ليكران فيرنل مغيل بي